sàngam ak sàngam ak sàngam dina leen génne ci ndox mi bu 2026 ñu génne quartier sàngam ak sàngam 2027 fii ba nàngam xëy na dinañ jeexal quartier yooyu mais ce programme la Salma waaw du mën a nekk hmm. tant que le gouvernement wala le pouvoir de Bassirou fay Faye hmm. amuñu li ñuy wax un plan audacieux mais également ambitieux man dama yaakaar dafa laaj audace dafa laaj ambition dafa am quartier yoo xam ne à Dakar ak dans d' autres pays du monde di dans d' autres du pays ay quartier yoo xam ne ndox dafay nekk day taa mais nit mën na faa dëkk. li tax mooy ay quartier la yoo xam ne bu ñu amee canalisation bi fa war a nekk su fa ndox taawee su tawee ba pare en moyen d' une heure deux heures ndox mi jàll canal bi dem. Mhm. am na. ca yooyu il faut ñu mettre fa le maximum pour canaliser ko Ouest Foire gii man maa ngi fàttaliku en 2009 ou 2010 wala 2011 je ne sais plus man boobu maa ngi dëkk Parcelles Assainies mais suñu waa kër ñooñu woo ne leen ñëw ñu ñëw leen ndox mi nangu na kër gi. keroog Salma ma àggee ci kër gi bi ma ci garage bi laa jaar pour wàcc ci biir saal bi dugg ci biir kër gi. bi mhm. ma jéggee jaar ci fenêtre saal ba wàcc ci biir kër gi. Mhm. ndox mi agsi na ma fii. Ouest Foire. Mhm. te pourtant Ouest Foire def nañ fa canalisation boo xam ne dëgg la am na fa quartier yoo xam ne ba léegi ndox mi da leen sonal mais pour l'essentiel ndox mi jóge na fa. d'accord ce qui diir dire que am na quartier yu taa à Dakar su ñu amee la canalisation qu'il faut. nit ñi danañ fi mën a dëkk. Mhm. mais il faut de l' audace beneen audace mooy lan mooy il faut que ñu am courage yu ñëpp ñi nga xam ne dañoo dëkk ci yoonu canaux yi ñu dindi ko. il le moom. Mhm. yaatal ko. Mhm. dindi ñi fa dëkk yaatal canalisation yi pour que ndox mi mën faa jaar. beneen bi mooy. te loolu Ablaye wadd moo ko commencé woon ma jàppoon ne c'est un projet ambitieux audacieux malheureusement lay Wade continué wu ko. Hmm. mooy li mu tuddee woon le plan Jaxaay. plan Jaxaay xam nga nag temps problème Wade mooy. Hmm. ay temps lu nekk ñu ne plan di plan di plan di plan te plan yi finalement seen poche lay mujj. Hmm. mais l'idée bi ci Wade amoon idée bu rafet la moo doon lan mooy Wade dafa toogoon ba xam ne am na quartier yoo xam ne Dakar ñi fa dëkk mënatuñ fa nekk. il faut ñu dindi ko. mu ne léegi day fay nit ñi tabaxal leen ay kër. jaxaay ñu dem dëkk foofu. site de recasement site de recasement. malheureusement malheureusement. da ngay tuxal ay nit ñu dem jaxaay seen kër yu ñu bàyyi ñeneen ñëw dëkk ci. amul njëriñ. amul njëriñ ce qu'il faut faire man loolu laa gëm mooy dafa am quartier yoo xam ne Dakar il faut que état bi am responsabilité wu dindi ñu fa dëkk. Mhm. ba pare def fa leneen mais mën naa nekk ay ay forêt parce que forêt ngi nii ci mbaaw ñoo ngi koy wàññi rek di dëkk. te pourtant dañuy wax dañu lay wax ne mooy poumon wu dakaar moo tax dakaar di noyyi. Mm-hmm. am na quartier yoo xam ne dakaar mm-hmm. du ñu taa parce que ndox mi foofu la jëm. Mm-hmm. mais yooyu il faut en créer ailleurs à soo demee dëkk bu mel ne Berlin ci Allemagne. mais da ngay daw ci biir dëkk bi gis ay fore foofu moo mën su tawee ndox mi mu dem fa. après nga wut moyen pour jëlee ko fa mais au moins du nekk ci kër yi. mais am na ay quartier fii Dakar tant que nit ñi ñi ngi fay dëkk. mais mënul ànd ak Bagnata parce que Dakar mooy dëkk boo xam ne seulement partout partout c'est du béton. oui dëgg la. man damay seetaan démb xamu bërki démb série boobu. bété bété ñu jël benn vue d'ensemble. Mm, mm, ngay xool mais dangay gis ne Dakar amul sax garab. gis del seet lu ma la wax booy xool dakaar nii. Mhm. boo ko tiimee di ko xool Dakar tali ngay seen. Mhm. béton suuf. kese tali béton suuf. Mhm. dakaar c'est un peu garab ngay seen. et pourtant mënoon nañu liggéey liggéey boo xam ne dëkk yu bari ci àdduna bi. Mhm. bis bu la yàlla dimbaloon nga dugg ci avion ñu ne la dëkk sàngama nii nga tiim ko li lay njëkk attiré mooy verte gi mu verte. fa sax ci wér gu yaram. mais mais dara gënu ko. Mhm. te pourtant dakaar mën na am loolu. mais Dakar fi ñu war a prévoir pour def fa ay forêt def fa ay park defa fa leneen mais moom la ñuy jaay ay nit ñu def ko ay kër dëkk fa. mooy ñi nga naan mbëqkat suuf yooyu. suuf yi mais loolu mënul ànd ak dëkk boñeta mm-hmm. gis nga ñun bi ñu demee euh, Berlin ñun journaliste africain yooyu. dañu yóbbu ci benn quartier xam nga africain rek. Mm-hmm. ñu ne fii la ñuy dal. quartier bi Salma daa fa rafet. rafet goo xam ne hôtel boo xam ne macha allah. Ah, ñuy waxtaan ak yi ñu ne ñu en fait les berlinois mooy les Allemands dëkk Berlin. Mm-hmm. bëgguñu quartier boobu. nanguwuñ faa dëkk. ma ne pourquoi ñu ne parce que amul garab. ok te yéen yéen a ngi jàpp ni ci paradis lañ leen. waaw ñun ñu ngi jàpp ne foofu waaye mais paradis la sax parce que dafa. rafet comme pas possible macha allah. oui macha allah mhm. comme pas possible. mais ñu ne allemand yi bëgguñu fa dëkk. ok pourquoi parce que amul garab ñun nag ñun. yéen yéen a ngi jàpp ni mu ngi baax. mais ñun fii Dakar. Mhm. dañuy daw fu garab nekk. dem di dëkk ci ay euh, ñëpp ne ci. nu mu tuddati tey ñu bari dégg naa benn waaye di ko expliquer et ça me paraît intéressant ma ne lii lu jar a étudier la. Mhm. waaye daf ne Dakar dañ naan de plus en day gën a tàng. Mhm. Dakar mu ne de plus en plus day gën a tàng. Mhm. waaw mu ne parce que Dakar ni ñu koy tabaxee moo baaxul. nee Dakar dañu waroon a fexe ba immeuble yi du laalante. immeuble yi du ñu laalante am ay mbedd yu dox seen diggante nga mën cee def parking oto man cee def ay jardin man cee def leneen su ko defee peex mi jóge ci géej gi. dina mën a upp ndakaaru ah mais tey boo xoolee corniche bi su péex jógee ci géej gi fu muy jaar pour upp ndakaaru corniche boobu def nañ koy immeuble. Hmm. te immeuble bu nekk day taqaloog moroom ci fépp béton. mais loolu jéey la. bu baax moo tax xam naa ne xaw ma ba xam bokk na seen projet mais le pouvoir bii nga xam ne mooy réew mi xaw ma ñaata at lañ koy yor. su gënee ci Sénégal yàlla nañ fi yàgg. bu ci gënul nag bu ñu fi yàgg. mais mu neex mu naqari di nga dégg fii bés xaw ma dinañ ko fekk ab déet ñu ne kat ñoom dis nañ ne danañ yóbbu tabax beneen dëkk. waaw mm-hmm. ah, ah oui ñu tabax yi beneen dëkk mais regarde dakaar voilà Dakar merci Baro. immeuble kese. kese kese kese. Ah, or dëkk yi nga xam ne ñoo gën a ñoom lañ gën a naw ci àdduna bi mais boo gisoon. boo boo manoon am image yu dëkk tubaab yi kii nga boo gisee seen vue d'ensemble mais lay njëkk attiré mooy verte gi mu verte mm-hmm. Dakar c'est le contraire mais loolu moom moo tax le résultat fépp fi nga xam ne dañ ko bàyyi woon pour ndox man fa dem jugee par exemple euh, Liberté 6 mm-hmm. boo xoolee Liberté 6 canal bi Liberté 6 dafay wàcc nii tey bu doon taw nga taxaw buntu wal fajiri da gis ndox mi di dem mm-hmm. defal expérience boobu soo taxawee buntu wal fajiri muy taw ndox mi day dem day day day dem boo taxawee sax boo def ndànk mu yóbbaale la. ok ndox moom fu mu daan jëm. zone de captage zone de captage. léegi zone de captage bu fa ndox ma yeggee fekk ñoom Salma dëkk fa nu may def. fekk ñun capté nañ ko pare. fekk yéen capté ngeen ko pare ndox bi fu muy def mais day day taa. day lu demati en tout cas mu ngi noonu. ngi noonu yéeme na loolu toog ba di nekk un mauvais souvenir. regarde dëkk bi bii ban dëkk la. Allemagne Allemagne ok Allemagne. gis nga li li lay attiré mooy vert gi mu verte. Mhm. gis nga boo demee euh, par exemple Torino. Euh, ci Italie dafa am ak dex goo xam ne moo jaar ci biir dëkk bi wër ko mhm. dama yaakaaroon ne ak dex la gu fa ma a nekk mais bu ma laajtee dañ ne ma ci seeni maam ci seeni maam lañ fa gasoon dex gi parce que dëkk bi da doon taa ok dëkk bi da doon inondé comme suñu Dakar gii ñu dagg ko gas fa ak dex goo xam ne ndox mi fa lay ndox mi fa lay jaar euh, bu tawee ndox mi fa lay jaar donc kër yi dootuñu taax te ñu ngi ko préserver ba tey. ba léegi. Mhm. te de mais malheureusement nag boo ko defoon Dakar moom ñu tuur fa mbalit. <laughs> mais dañ ko préserver ba léegi dafa rafet dafa set wecc. Mhm. boo demee Paris mais Paris li tax mu mel nii bañ naan c'est la plus belle ville du monde mais Paris melu woon nii ah. Hmm. dafa am nit ku ko jiite ñëw toj ay kër toj ay église dagg fa ay mbedd. Mhm. Paris mel nii mu mel donc Dakar également xaw ma kan moo ko nar a defar mais ku ko nar a defar par force dina toj ay kër. pour faire des omelettes. il faut casser des œufs et et d'ailleurs Sénégal du jafe de. Hmm. tey Dakar gi bu bu ko état bëggoon a tojaat daggaat mbedd yi man gëm naa du jafe xam nga lu tax du jafe. Hmm. bari na ci kër yoo xam ne fa mu nekk état bee ko moom. waaw loolu tamit am na. xam nga préfet bu Rufisque wax na ko keroog. Hmm. préfet bu Rufisque wax na ko keroog mais fii ci digg ndakaaru am na ci kër yoo xam ne fa ñu nekk wala genn wàll ci kër ga état bee ko moom c'est dans le domaine public. dans le domaine public waaw dañuy tabax ba weesu. waaw te loolu Sidy Lamine Niass am na lu mu ma ci mosoon a wax. d' accord nekk na lu yéeme on a beaucoup appris Moustapha comme d' habitude. jërëjëfati euh, Salma Ibrahima ils sont vraiment nombreux ñu ngi commenté bu baax a baax di tapoter live bi. ñu ngi ah. leen di jaajëfal waaye amuñu seen fay yéen ñi nga xamante ni yéen kër ngeen nekk au Sénégal wala ci diaspora bi ngeen bàyyi seen yitte yëpp di di seetaan lu baax. ko kii nee na Moustapha wax nga dëgg mi ngi tudd Ami Guèye am di Guèye mhm. mu ne ma fii ma dëkk ci